jour bi Aïcha du couleur pour Les femmes sénégalaises de Bilbao présentent Wally Balago Seck à Bilbao. Attention, Bercy Bilbao. Le 5 juillet, fan la Santana 27 Fever Bilbao Vizcaya. Co-organisé loolu ñu ne Fama et Rama doomu ndeyu Penda Naar yi sponsor officiel restaurant Tangana PDG bi di Soxna Khady Fatou Cissé Madame Sall responsable Ami Salam marraine yi Kër Belma boutique PDG ba di Fatou Dian parrain ba Djilignan Rosa Zaher Diabira restaurant La Saint-Louisienne PDG ba de Bijou Mbayang Khoulé Dine Khoulé ASC Bakhyaay présidente ba di Anta Ndongo Touba Cosmétique PDG ba di Fatou Seck restaurant Sénégambia responsable ba di Astou Cissé restaurant Te Baobab responsable ba di Maman ASC Teranga président Abdoulaye Wade ASC Bassori présidente ba di Binta les astuces de Ramitag PDG Ramachoun alimentation Mam DG ba di euh, soxna Aram kër-këri dag dagi waaw waaw du wadi borom kër Wally Balago Seck à Bilbao le 5 juillet 2024 infoline 34 63 22 97 541 34 60 28 14 193 wala 34 63 28 29 272. loolu amee. man li ma gëm mooy su justice àttee na ca Aïcha def benn mu fay mënta fay mu ñaan njëkk mënta ñaan njëkk da koy tëdd rek mu jeex heure gaay lal tëdd fëgg nelaw xaw ma lan ñu tëdd ko rek mu jeex. d'accord mooy comme lu ñuy def lu ñuy gis des fois ci yenn trafiquants de drogue yi bu ñu leen jàppee dañuy préférer tëdd peine. Euh, bañ a delloo xaalis wala bañ a delloo marchandise bi euh, su ko defee bu ñu génnee mën a continuer ak koppar googu ñu dencoon. Mhm. loolu la. alors est-ce que tey euh, gisuñu sama sama dernière question ma bañ yàgg ci ligne bi Cheikh bi. bu la neexee yàgg euh, sama sama dernière question man lu ma gisoon. waa <laughs> sama sama beneen question bu may bu may bu may laajte mooy euh, euh, famille Thiam yi actuellement nan lañ nekk di vivre cette euh, situation ak Thiam lui personnellement psychologiquement est-ce que mu ngi surmonter cette situation. mbokki Thiam dégg naa leen ba dégg ex jabaram mais seede bu rafet bi ex jabaram seede ci moom kenn mësu koo dégg dinaa la yónnee audio bi suma ma paree. seeram day daw. nee na ginnaaw bi ñu divorcé am jëndal këru ay millions ci Canada ngir mu téye njaboot gi ci jàmm fu jëm ci àdduna mm. business mbokki caam yi mm-hmm. li leen metti mooy jël neen caam def ko sénégalais pour mën koo yàq mën koo defal musiba mbaa bokk ma mm-hmm. ñu nekk ci dëkk bi nag muñ ko ñaari at ñuy saaga ndey caam di saaga baayam di ko wax lu ne ñëpp noppi mm-hmm. mais léegi nag dañoo dem ba ne lu ëpp tuuru caam la ak aysa neen ko réglé waaye bu ci saaga ak xaste askan bokkee ñoom dañuy jug taxaw nit jarbaa tamit ñi mhm. taxaw nii la demee mais moom en personne waaw euh, taalibe bàyyi la su ma waxee taalibe bàyyi mhm. mooy taalibe dafay am ndëgërluwaay bu nekk ci moom mhm. ndëgërluwaay boobu nag moo tax biñ na Zeyna Bamba rek fi nga jaar ñi tooñ la jéem la xoqatal jéem la tuutal buñ xamoon ne buñ la génnee nga am sa organe bopp konoon duñ la mm-hmm. génn mm-hmm. waaye seexul xadim dalay sauver ci lu bari loolu loolooy njëriñu mm-hmm. bëgg yàlla moom nag conscience am day tranquille ndax ndaw si ki koy supporter ku ñuy wax sootu jàmme moo fi ñëw mu ne ndaw si ay hôtel di nangam di kattante foofu wax ko wax yu ñaaw daal démb bi mu fi ñëwee. Mm-hmm. Mm-hmm. yoo xam ne man dama ci rusa dellu sax parce que jigéen kenn du ko def yenn yi daal. waaw dëgg la dëgg la. te xale bi mu ngi jekk ma mu ngi jekk macha allah mën a am lu ne. Mm-hmm. waaw waaw waaye dafa opéré tamit nag yaram bi noonu nekkul noonu la juddoo de daf ko defaraat. xam nga yow ah, nag dafa def chirurgie. waaw dafa chirurgie chirurgie waat. d'accord. nekkul naturel noonu dafa defar bëñ yi defar affaire yeeg yooyu daal. mais xam nga kum neex defar waaye paar ni nga naturel yeneen jéeg yi naturel noon la naturel de du demee noonu de. Mhm. xaara kii d'accord euh, une toute une ah, àdduna maa ngi laa block from my li tax ma laa block gis ah, li ko leer te leer ko mooy mhm. dafa bëggoon jabar te yàlla tax muy wut jabar mhm. ti mu ne ndaw si day kattante ça veut dire que du vierge mais moom daf ko bëggoon rek musu koo laal yëkkati ay milliard def ci moom mu ne ko li ma la may mhm. may say mbokk jëlal waaye lii ma la joxoon pour ñu liggéey delloo ma ndaw si ne li nga ma mayoon yaa ma ko may forcé wu ma la li nga waxoon pour business da ngay duul doo jot dara emuñ ci ñàkk a jot dara dem ci média bi di ko xas di ko saaga di ko wax lu bon ñu def ko ko moom loolu lépp hmm. daf ko gëmee ne nattu la ndax lu baax la doon def ba lii fekk ko moom ñi la ko dundee. Hmm. dernière question est-ce que Thiam dafa décider pardonner psychologiquement avancer dans la vie wala situation bi mu dund du ko indil ab soxorte mooy maanaam mu am beaucoup plus de vigilance ci àddunaam li ci des. parce que am na ñoo xam dañuy jaar ci yenn déception muy ñu jugee fa soxor ñu jugee fa soxor ñoom du ñu du ñu defalati nit dootuñu yërëm nit dootu ñu defal nit lu baax. moom moom moom bi loolu passé ba tey. Mm-hmm. Euh, yëkkati na trente million francs CFA jox ko équipe nationale bu Gambie. Mm-hmm. kër diine Sénégal yëpp alalam di ko ak wërsëgam gis nga nit boo juddoo ngar mi. Mm-hmm. am wërsëg te tabe mën koo joxe nit ku la du ko teree joxe. te bu lii paasee waaw di nga xam ne jëf ju baax ci nit ku baax message te du ko ko yàqal ba na tukki. Mhm. c'est jëf ju baax c'est macha allah. Mhm. jëf ju bon du message te du tax mu soppeeku mukk. Mhm. kii garmi la ajaratu xooy xooy xooy mooy moy ndeem. ndeysaan yal na ko yàlla taxawu. jàng si bàjjanam ba ko yar la njëkk tabaxal kër bala muy am kër gum dëkk moom. Hmm. Medina Baye Niass ki bokk ki bokk ak ndeyam ndey ak baayam fa dàq troisième étage. Hmm. Gàmbi fi gën a seer ci géej gi mu jëndal fa seen caati hmm. mais est-ce que dina teralaat jigéen comme ni mu teralee Aïcha mi est-ce que teraanga bi euh, dina ko defalaat jigéen comme ni mu ko defee nii. loolu moom la ak boppam moom mooy seet. ba gis jigéen ju bëgg a sëy. lan la koy defal ci teranga loolu moom la ak boppam du moom ak Aysa moom mooy wan boppam mooy kan xam Aysa ko jar wala moom noonu la mel xam nga Aysa yàgg naa dem may góor teralu ko nii teranga gi ci caam la moom moo ko tollu hmm. noonu la mel hmm. mais bu doon bajo bu neex la kattu ko ku la musta tëddee mu soo toog mu lay teral du yaa tax Maodo ñamagul <laughs> ak lim joxe yëpp ñamagul maanaam kon da ngay xam ne teraanga gi du ci bajo bu saf bee kat yu neex yi waaye caama am teraanga. Mm-hmm. su fekkoon ne den daan tëddante. dëgg la fañ ko doon jàpp baax. waaye musta tëddee musta tëdd moom moo bëggoon baax. waaw gaa yi ñu ngi laajte ba xam ba xam ba xam lu naturel la est-ce affaire mystique affaire mystique dugg ci tamit. parce que jigéen tey jàpp nañ ñu góor ñi en fait jigéen ñu bari dañu jàpp ni góor buy defal teraanga yenn jigéen ñi c'est parce que am na lu ñu sekk intimement. xam nga tey dinaa la mën a wax ne mbëggeel moo ëpp doole mystique. Mhm. mbëggeel moo ëpp waaye tamit. dëgg la. jigéeni jet setteurs yii. muy Aïssa muy Sénégal muy Gambie ñoo gën a xam sëriñ ñoo gën a tabe ñoo daq a joxe ndax ñoom li ñuy am liggéeyuñ ko dañuy dem rek benn match wala benn daan ñu dóor leen ay millions mën nañoo jox sëriñ un million loolu moom xam naa ko. ndax maa ngi woon ci système bi am ay lem. am ay daan leen jox. ñuy sangoo ko def ay fer doon joxe ay fer. waaw ay fer doon joxe man moo tax ma ne leen maa doon sëriñi caga ji man moo tax ma xam jikko caga yi léegi nag ndax Aïcha def na ko wala defu ko xaw ma waaye ñoom ñëpp noonu leen mel dañuy maccalante hmm. jigéen di laalante góor di laal drogue di naan sàngara di tux di di di pil di mooy euh, suus di dem sëriñ yëpp la ñuy def waaye ndax Aïcha def na ko wala hmm. defu ko nag kooku moom xaw ma ci dara. d'accord Cheikh bi maa ngi lay jaajëfal ci leeral yi dama ko doon gëstu rek ngir topp yëf yi nu mu demee xam naa boo amaatee temps rek nga jox ma benn une heure ñu live ci euh, cas ak Ndaxte incha allah. noonu nga jàngatee en tant Mario ak moom. waaw. waaye man nag euh, suma position day garaaw pour ma wax ci ndax man non Mimi Love du ma ko bloqué suma jarbaale Mimi defal lu la neex kaawul Ndaxte. Mm-hmm. ni may défendre jigéen moo tax munuma cee waaye am na ci lu ma gëmut. am na loo gëmul ci waxam. Mm-hmm. ah bon comme lan. mais damay ñëw ma live ci maak yow am na lu ma ci gëmul tatam. temps bi mu ko wax neexuma. pourquoi moment bi baaxul daal. temps bi baaxul pourquoi mu dem ba war a génnee musique. wax mm-hmm. histoire am attention nit ñi dafay yàq dëggam. Mm-hmm. maanaam dëgg gi mu am. da koy yàq day mel ni soo biis la doon def te sentiment bu mu yëg la man temps bi mu wax baaxul ci ma. Euh, sànq dafa am benn boroom xam-xam ci wàllu musique showbiz bu ma bu ma woo ñu ciy waxtaan mu ne ma cheikh bi li nga wax nii la wax mu ne ma moom bi mu defee sortie médiatique dafa waroon toog une semaine deux semaines ba ñëpp naan fan la nekk lan lay dund psychologiquement ba mu dugg ci psychologie nit ñi mu door a génn clip bi. donc man ànduma ci lii. ndax munoo mm-hmm. def sa clip préparé ko ba pare ñëw ñu histoire boo dund boo xam ne ñun ñu ko seetaan yépp munuñoo nelaw ngir yërëm la. yow mhm. war a annoncé waat clip. donc réellement quoi. da nga bëgg ngay jàpp ni bat da nga mhm. ñu jënd clip bi wala da nga bëgg ñiiram la fan nga ñuy teg. d'accord léegi damay bàyyi nga yeggali ci Aïcha. non non non man amul Aïcha lu ma neex laay wax toogal. kon ñu taxaw foofu man am naa temps boo bëggee ñu yeggali foofu. léegi mhm. ma wax la non dañ koy préparé parce que maa ngi wax ak Mario foog ma jot. ndaxte xam suma xel waaye suma xalaat laa lay wax pour l'instant. moment bi ko wax baaxut ci man ndax jigéen la xale la dundu avortement dundu métti ci sëy d'après moom li mu wax. Mm-hmm. mu ñëwaat war a annoncé waat clip ñaari mbégteeg naqar yow ban nga bëgg ñu jàpp danga bëgg ñu yërëm la jënd clip bi wala danga nga bëgg attention ñu xam ne ndax existé na pour ñu dem déglu clip bi wala réellement lan nga bëgg. Mm, d'accord. nandite ma xam nga man maay sëriñu nante. waaw dëgg la su ma nekkoon ci borom dama ko naan. jugal nga nekk voix pour jigéen yu ñuy sonnal. en tant que mm-hmm. artiste nga doon ambassadrice ni Gabriel Kane ni Zeyna Bamba nga taxaw ci biir loolu di nga am popularité booy jaay sa musique. mais oo oh, den ma dóor dama nangam damay musique. Mm-hmm. Mm-hmm. waxuma day fen waxuma. est-ce que est-ce que. est-ce que tey seetaan nga euh, point de presse bu mu doon amal ak presse bi seetaan nga ko. non seetaanaguma ko. aha elle était trop sur la défensive maanaam munoo def benn sortie médiatique bu ni men bi nga xam ne pendant quarante huit heures ñëpp a ngi ciy wax yërëm la ñenn ñi jooy ci ñaan ñi xas Mario nga ñëw face à la presse la presse te pose des questions par rapport à des rebondissements parce que nit ñi tamit dégg-dégg la ñu am. te ku ci nekk boo déggee bëgg nga xalaat li nga xalaat nii ba xam dëgg la am du dëgg mais elle a refusé catégoriquement de répondre ci li nga xam ne moom mooy wàllam ak digganteem ak Mario d'autant plus que nit ñi waroon écoute albumam kenn écoutul son ba kenn écoutul album ba ñu ngi doon concentré ci li mu wax ak Mario donc pour rejoindre la yow ci li nga wax le moment de de sa vidéo de son clip dafa nekkul moment bu baax mi par rapport à sa sortie médiatique je sais pas qui l'a conseillé de le faire mais ce n'est pas bon non man moom nanditema nanditema moment bi mu wax neexuma léegi nag ñu des ci ñu dugg ci biir cas bi dëgg la wala du dëgg ak lan mooy fëtam loolu tam war neen koo wax mais comme man jigéen laa supporté mhm. nii nii bu ma waxee du baax ci moom parce que man li ma dégg dama jël suma taan taan ko ñaari yoon te buñ toogoon mën na la wax ne mhm. point bii mhm. gaw ko point bii gaw ma ko point bii gëwuma ko teg ko ci taabul bi ñeenti point gis mhm. naa ko ci. léegi na xam nga nu ñuy def. Mhm. dama lay bàyyi nga recueillir version ndaxte euh, recueillir ay information euh, ca Mario. mën naa la jox rendez-vous dimanche ma def affiche. ñu def spécial ndaxte Mario. waaw parce que suba. gisoo looloo dàq. non dimanche 7h. su ma 7h may naa la ko dimanche suba damay dem ci ay Fati waa Gambie ñu may xaar leeral leen kaa bi. Hmm. bu subaa dimanche allah. kon ñu jël dimanche waa dimanche 19h ah, heure Sénégal ma taal nga taal ñu ñëw man ma wax ah. la ci suma xalaat. ci diggante bi su ndaxte mu ne ñëw mu ñëw. Mario mu ne ñëw mu ñëw. accord d' accord macha allah am na solo. macha allah. xaaral ma bàyyi la ma mbokkab Gambian people yi. te su ma la conseillé teg ci suuf dee may déglu nag. mais yëg nga ne. <laughs> waaw. le lay. wax ci Momo Dieng jabari américain bi mu utilisé jël xaalisam ba pare fase ko topp jigéen ji di katt Ndakaaru le premier juin. Hmm? Hmm? waaw ak beneen kaa ki le premier juin ay waay. premier juin waaw parce que dafa yoo xam ne jaadu jigéen kenn du ko toroxal saa cheikh cheikh bi loolu doy na waar de. wala Momo moo ko man de fekk naa bi mu koy jox micro micro en noor man fekk naa bi mu ko koy jox ci boîte mu koy may micro en or. fekk naa ko looloo gën a tuuti. xaw ma femme xawma femme bi nag personnellement mais xam naa ku ko xam nee na ma li ngeen di gis ci biti li ko femme bi di defal moo ëpp xëy na nag comme ni ngay waxee sa yëppay am say yëppay am problème te jigéen bu la buggul du la teral te aussi jàpp naa ni moom moo aussi su buggul woon jabaram du ko takk ah da nga baax rek Zeyda mais dinañ ci ñëw le premier jour nañu nañu fexe daal ba seytaane ban cee dugg cheikh bi nañ ci dox rek nañ ci dox lu rafet rek. non may naa ko temps. <laughs> te bàyyil su ma la bàyyil su ma la ba pare. bàyyil su la conseillé ba pare nga ne ma ok bàyyi naa boo génnee def gën a pire ay cheikh bi <laughs> maa ngi coupé. problème yi am sax xamoo koy fara. la yow looloo doon sa problème. sama sama sama ñaari nit ñoo doon xeex. ay waay su ma woowee su ma woowee Californie ne ko Californie ngir yàlla wa rasul mu ne ma waa dégg naa la bàyyi naa. ma wow Cheikh Amé ne ko ngir yàlla ay waay bàyyi leen wax ji mu sew man dafa toll nii dama sonn Cheikh bi ne ma noo banaa ma gis balaa cinq minutes Cheikh bi daal laay wax lu gën a garaaw ma ne ay waay ay ñii ku leen di jubóole. <laughs> ma mais kontaan na Zeyna waaw allez merci beaucoup jërëjëf. kii kenn mënalu ko dara bàyyi ma dégg maa ngi leen a Ablaye Mbuub su dee yaa ma seetaan baalal ma yónnee ma vidéo bi nga bëggoon ma teg ko all these days Ablaye Mbuub aw ma ko fii doomi ajaratu cu njaay bi Les femmes sénégalaises de Bilbao présentent Wally Balago Seck à Bilbao. Attention, Bercy Bilbao le 5 juillet. Fan la Santana 27 Fever Bilbao Vizcaya. Co-organisé loolu ñu ne Femme et Rama doomu ndeyu Penda Naar yi sponsor officiel restaurant Tangana PDG bi di Soxna Khadi Fatou Cissé Madame Sall responsable Ami Salam marraine yi Kër Belma boutique PDG ba di Fatou Dian parrain ba chéri Rosa Zaher Diabira restaurant La Saint-Louisienne PDG ba di Bijou Mbayang Khoulé Dine Khoulé ASC Bakhyaay présidente ba di Anta Ndongo Touba Cosmétique PDG ba di Fatou Seck restaurant Sénégambia responsable ba di Astou Cissé restaurant Baobab responsable ba di Maman ASC Teranga président Abdoulaye Wade ASC Bassori présidente ba di Binta Ndiaye les astuces de Ramitag PDG Ramathoun alimentation Mam PDG ba di euh, soxna Aram. kër kër yi dagdagi waaw waaw du wati borom kër. Wally Balago Seck à Bilbao le 5 juillet 2024 infoline 34 63 22 97 541 34 60 28 14 193 wala 34 63 28 29 272.